waaw salaamaaleykum wa rahmatullah euh, yéen chauffeur yi chauffeur yi yi jógee Yoro Fula ou bien di jógee Kolda di dem Yoro Fula ou bien Yoro Fula dem Kolda ngeen def attention bu baax a baax a baax pont bi dafa dem ba pare waaw def leen attention bu baax a baax a baax ci Sinthiane après juste Sinthiane Seyku ngeen def attention bu baax a baax a baax a baax gis ngeen pont bi dafa dem ba pare moytu leen waaw vraiment c'est très dangereux c'est très très très dangereux gis ngeen voilà gis ngeen pont bi nu mu mel voilà espace rek ci espace même pas un mètre ba moytu les chauffeurs là ah, vigilance vigilance s'il vous plaît